am ci yenn respect rek moo tax mooy tontu sax seen i question mais wax dëgg yàlla man moom dama jël décision bi làmb moom du ma ciy wax dara damay toog seetaan rek jàppale sama mbër soutenir ko ànd ak moom pousser ko à la victoire xam naa rek loolu laa amoon lu ma ciy wax yan bàyyi ma ko rek ndax seen ay jeunes sénégalais ñooy bëre Pikine Guédiawaye benn la ñu ñaan yàlla jàmm rek ñu ñaan yàlla fair play yàlla yëpp ñu ci bis bi ñu ñaanal yàlla Balla Gaye yàlla mooy ko jàmm ak salaam. mais bëgg nañoo xam tamit Balla Gaye ci ban état de forme la nekk. Balla Gaye xam naa su ñëwee moom bu mu war a wax ak yéen dina la li may woote mooy non violence di ñaan jàmm di wax daal vraiment lii mooy Sénégal lii sport rek la Boy Niang Balla Gaye ñoo bokk ak baay lii mooy seen gantaan loolu moo leen yàlla rek ñoom may leen salaam. le jour yi nag am nañ sañ-sañu ñaanal yàlla suñu mbër Balla Gaye yàlla may ko ndam sama état de forme bi mu yor doy na sa Balla Gaye daal wax dëgg yàlla moom def na lu mu war a def liggéey na lu mu war a liggéey li ci des nag mooy ñaan yàlla rek yàlla suturaal ko incha allah mais xel dal na seen côté bon xel dal na alhamdulilah yàlla yàlla mottali mobilisation bon comme d'habitude rek ñu suñu sport national la Pikine Guédiawaye benn la benn benn gox la rek kon donc lu ñu mën a def ñun mooy ñaax suñu géejawaay yëpp ñu mobiliser leen jox leen ay moyens ñu mën a dem stade supporter seen bët pousser ko à la victoire noonu ko géejawaay di def itam noonu la ko Pikine jël recul. non du jël recul maturité la rek xam dina toll foo xam ne nag soo njabootee ñëpp da ñaan yàlla ñëpp am jàmm rek man foofu laa toll vraiment fi ma toll ci àdduna mooy ñëpp laa njaboote muy Boy Niang muy Balla ñëpp njaboot lañ sañ-sañ bi nga am rek mooy Géejawaay lañ dëkk Balla Gaye suñu mbër la suñu rakk la suñu xarit la suñu nit la dañ koy ñaanal yàlla rek yàlla may ko ndam mais ñun ñëpp suñu njaboot lañ wax dëgg yàlla hmm. xale bi de nee na xale bu sax sàpp ngeen di bëri que doo leen di may ngeen jàpp ngeen ba ba pare yàlla moo leen suturee Balla Gaye ñu doon wax bu jàppee lamb ji jeex mu am adversaire boo xam ne da koy may mu jàpp ngeen ba mu doon amul problème mais lépp seen sport loolu mooy neexal combat bi mais ku ci ne xam na kan ak kan mooy kan mais loolu moo koy neexal te yàlla na ci yàlla yóbbu jàmm maanaam ku ne xam na ku la mën daal lamb daal la noonu la loolu moo koy neexal Balla Gaye di wax Boy Niang di wax waaw lamb ji nag lamb la daal yàlla na ci yàlla yóbbu jàmm Habib ma bëgg wax yàlla na ci yàlla yóbbu jàmm waxal waxal waxal ci ma sooy jàmm bu jiitu yàlla yàlla borom sutura la yàlla na yàlla defal sutura ngeen baax ma rek daal